GIGN ñoom la ñu jàpp ak ay faux billets yu ci ñaari milliards ñett la waaye kenn ki l'observateur nee nañu ab civil la brigade de recherche bu Saly Portudal moo leen feeñal ñaari agent yu GIGN yi nee nañu ñoo ngi bokk ci garde rapproché bu autorité bu mag ci état bi teg nañu leen loxo di leen toppee tuumay association malfaiteur ak trafic ay faux billets yi ñu fekk ci ñoom ñu koy trafic ay billets dollars lañu ñu duy ko ci walis ba mu fees élément yu GIGN lañu ni élément yu section recherche yu sali yi def ba xam li ñu doon def ak nañu def ba jàpp leen loolee lépp l'observateur xëy na ci dikk ak ñun réew mi quotidien xëy dikk ak ñun ci coow lu rëy li am jamono ci biir mbiri accusation escroquerie ci wàllu suuf bi nee nañu moo fa benn doomu Baye Niass bu jigéen mooy tuumal grand saltige Maodo ak escroquerie moom Maodo Ngom réew mi quotidien donte jaraaf Youssou Ndoye sowe ne ko waaye taxul mu génn ci mball gi ndax grand jaraaf di Mamadou Diop Thioune mi ngi ci tànk ngir plainte ko ci kanamu yoon yoon di justice mi doon enquête ci giru bi daan woon ci immeuble R plus 4 bu ñu dëkkee ca Wakam ba juróomi doomi aadama jële woon cee gaañu-gaañu matériel yu bari yàqu woon ca libération ne nañu enquête ba lépp ci ndoddal Eiffage la ko teg ndax moom entreprise bii di Eiffage yoroon liggéey yi jëm ci hôpital bu Wakam calculam yu bon moo tax mu naroon a faati bakkan ca Wakam ñu romb Wakam taañaañal ba Touba xooli lu yéeme te ñaaw li ñu la quotidien nañu moom la fay buy flexible yooy yooyu la ay nit dem daggate ko ngir sabote ko Pedre Sy mi directeur exploitation maintenance ci office national assainissement di leeral ci biir l'observateur li xew li xew nee na foofee ca Touba ci buntu mairie ba li ñu seetlu mooy nawet bu nekk day taa di inondé ba dagg yoon ONAS yóbbu fa ab moto pomp bu 1500 mètres cube heure defal ko fa ay tiwu yu toll ci 2 kilomètres nga xam ne heure bu tawee ndox du taa du taxawàllu ci buntu mairie ba lépp lay pompe ngàcc ko sànn ci àll ba am ay yàqkat yu dem daggate tiwu ya mu nar a juraat nag yeneeni jafe-jafe rawatina ci jamonoy màggal gi ci waxtaayu màggal gi ci la ab délégation bu coalition Yewwi ko kaabu na leen ci Ousmane Sonko nee leen nañu ko wax mu dakkal xiifal gi muy def yëkkati tàndarma jox leen ngir ñu jox ko ko wax na leen it ne dina def li ko war ngir di tege ci kaw mën teggeeku le témoigne teg ci di xamal xamal ne moom sëriñ bi xamal na délégation ba it ne mënut a weñ loxo président de la république Les Échos bind ne sëriñ Muntaxa jox na Ousmane Sonko ndigalal mu bàyyi xiifal bi laaj lu ne mel teg na ci di laaj ndax yóbbante bu xalifa bi dana yegg ci Ousmane Sonko tàndarma ji ñu ne dafa bokk ci yóbbante ba L'Observateur mi ngi ñuy leeralal na mu demee ubbil yéenekaay bi leader yu yeewi askan yu newoon ca délégation ba ñoo ñaan sëriñ bi mu jox leen loo xam mu arrêté a filmer ma woon ca délégation ba l'Observateur ne nañu moo filmer yëf yi ak téléphone portable mu libéré Ousmane Sonko ñi ko def porte-parole gouvernement bi di Abdou Karim Fofana tontu na leen ci xët mu njëkk lii quotidien Abdou Karim Fofana fay xamle ne ñi def pétition bi dañoo violé la ba seen xool sedd li ñu naan séparation des pouvoirs soursoi bind ne téeméeri personnalité ak ñeent fukk ak ñaar yi def seen pétition Abdou Karim Fofana wax na leen seen gën gi nopp ci la Sénégal ministre Yoro Dia di fa wax ne li dommage moo di boroom xel mu mel ne Felwine Sarr xëy xëy rekk bëgg a soppeeku bëgg a doon ab nervi intellectuel